màssawu bokk yépp muy tiis di diis woo xam ni ci boppu Sénégal la wàcc di ci jaal mbooleem bokk ya dëkkandoo ya ak am di jàmm yàgg wëllëre ya waaye di ci jaale it ki yàlla dogal mu nekk tey ci boppu réew mi muy le président de la république son excellence Hadji Makiyu Sall moo boole ñépp tey jaboote moom la yàlla dogal mu nekk ci bopp réew mi boole kuy sénégalais yépp tey jaboote ñuy àndandoo fa tabarakallahu moom it di ko jaale di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla na ñuy musal rekk ci lu ni mel te yemale ko fii bi jaahi sayidina muhammadin alayhi salaatu wassalaam mu nekk di xew-xew bu diis di bu tiis boo xam ni waral na ah, njiital réew mi jël dogal def ñetti fani dëcc ci réew mi di réewum Sénégal drapeau yépp wàcce nañu ca digg ba di wane ni tiis la réew mi yépp nekk tey di ko dunde boole kook diis ndax tiis na diis na ndax li dee di faral di boole mooy betteek metti te bii bettee na metti na di ñaan yàlla subhanahu wa ñi ci jaare wuyiju ko yàl nay seen njot ca moom ci daraja yonent bi sallallahu taala alayhi wa waaye it di ci delloo seente ci fàttalenteeg laayante biir rekk ak yi yoo xam ni tukkee na làmmiñu kilifa yi mooy mbooleem xalifa yi ci réew mi yépp ak kilifa yi yëkkati nañu seen kàddu di kàddu njaala ki ñaan jëmee ko ci ñawi ju sunu borom subhanahu wa taala dem fa ñu bokk dëkkmal jëm fa ñun ñépp ca kanamam la ñuy ji ak ñaanit ñi nga xam ni ñoo ci jële ay gaañu gaañu te dese seeni bakken yal na yàlla saafara leen yërëmal nu ña ca jaare jéggal leen wàccee leen ca aljanna si ci darajant bi alayhi salaatu wassalaam waaye it ñuy ànd di bokk di fàttali ko ndoo waxi sunu maam ju tedd ja ca tuuba maam alxaaji fadilu mbàkke radiallahu taala anhu wax naa wax na wax boo xam ni wala wax joo xam ni dafa tënk li ñu tudde ko de la téere boobu nga xam ni kuy jàng dawal di ñaan mokkal ba jaare fa am sa permi war nañ caa yokk dolli ca li may bëgg wax te mu tukkee ca làmminam bu sell wu tedd ba yegg naa sax ba ni mënoon nañ ko sax bind ci yoon yi ci tableau yi di ko ci bind ca na mu tënke woon loo xam ni ku ko ni defee woon noonu yu mel nii dinay mën di wàññeeku lool ba sax yëgg ci mën a ñàkk te mooy waxam ja mu waxoon ne daw ndànk dal ndànk lu am di ndànk jeex na daw ndànk dal ndànk bu dal dee am te fekk yaa nga doon daw ndànk ndànk ngay dale mu ne su boobaa lu am di ndànk mu ne waaye tërërër tës nemm wala yazu ma ni mu nekk di wax joo xam ne buñ ko mënoon dolli ci téere boobu di jàngal dawal ba nga mën caa amee sa permi ñu yokk ko ca bind ko it ci yoon yi daw ndànk dal ndànk lu am di ndànk waaye tërërër tës nemm wax jooju mat na téere su ko defee ñu dellu si it ci fàttalente geeg laayante biir bi ci am yar ami teggin fa tabaarakallah asnul xaaliqin te ku yàlla dogal ba muy dawal tamit nay dëkklu tali bi rëdd yooyu ci nekk yépp dañuy wax su ko defee ñu mën a dégg lañuy wax respecté ndoo yooyu jàmm mën na am su ko defee it ñu delloo delloowaat ci ah defaraat jikko yi rekk defaraat jikko yi ñu ngi jotalit njaalu soppe di xarit bu wëlërante lool ak Safina FM muy xaaji Mouhamadul Mansour dem ngiy woote fa tabaarakallaahu di tiislu di ñaanit tey yónnee njaalam moom daal jaalante lay doon ndax Sénégal ñëpp ay bokk lañu benn nit bu jaare ci accident wuuju sunu boroom sax ëpp na waxu maag nag lim bu toll ni bi ñu wax ah ñu delluwaat rekk ci jikko yi delluwaat rek ci ànd ak xel delluwaat rek ci ànd ak sago ak yar ak teggin delluwaat rek ci di respecté rudd yooyu tali bi wax ak ñun moytu génn jëkkante gi yooyu ay xeeti musiba la yoo xam ni jëkkanteek ku la romb nga bëgg ko daal di romb yow it te dinaay faral di wax ni ci kaw seetlu nañu def très attention ci tali bi ndax borom martaba yaa ngi dawal de alkamaalu wax waxda nit mën na la romb def njuumteem boo xam ne sax teyu ko nga énervé dab ko accéléré daggal ko saaga fekk borom martaba la du ko yëg sax martabaam dab la jëfandikook yow loolu it ñu di ko bàyyi xel moo tax faw yar teggin ak defar sa jikko ba mu baax su ko defee rekk dañoo tuddee ak nite dañoo tuddee ak nite ndax nit dafay nite ku nite nag bu dawalee wax dëgg yàlla yàlla subhanahu wa taala mën na ko ca defal jàmm ba mu dem ak jàmm yegg ak jàmm dellu seeg jàmm àndaat ak jàmm ba ëgsi fa mu ba woowoon ak jàmm moo tax dal teey dal teey dal teey bokk na ci it ci respecter jaamu yàlla yi subhanahu wa taala ki am otoom di ca yeb nit ñi ñuy tukki di dama koy ñëw na am farlu ak yitte ak i jom ak bareekanuy njomb ba otoom lépp loo xam ni sikk ngi ci rekk mu teel ca jublu defar ko bupp na màgget genn màgget gi assurance ñu di ko bàyyi xel bu baax te assurance it ñoom i tamit bu lu mel ni amee ba ñu wóor mu wóor ni foofa jaaroon nañu ca ñoom ñu def ca taxawaay yu gaaw te teem mu nag wax dëgg yàlla su ko defee tëral nañu ay tëralin yoo xam ne mi ngi jóge ci kilifa yi ngir seetaat yëf yi mu bañ a nekk di tëralin yoo xam ne rekk njël mu jëkk lay am waaye ñu respecte ko ba fawu nag ba ci yenn at yi sax am ko fekk ndawe nga ba mu ëpp ñu dox loolu toll noonu nga di ko dawal di yóbbu nit ñi te ñor ga àggu ca xam ga àggu ca xàmme ga àggu ca yar baag teggin yaag jikko yu rafete nag ñoom xandu ñu fa sax ba fay xal di àgg ñu mel noonu wax dëgg yàlla ñu respecté lii ñu tëral tey seetaale loolu ci balaa ñuy jël permi di la ko jox nañuy natte sa xam-xam ci mën a dawal ak sa dégg li la téere bi jàngal nga xam ne di nga mën a déglu di déggit li la tari bi wax tali bi yaa aju ca yooyu yépp boo ca jàllee ba wara a jot permis nañu ci boole di xool jikko ja nag ak yar baag teggin ba ak dal nga walla ëppal nga te lépp lu ànd ak dal ña koy def ànd akuk dal yonent bi nee na loolu dal goo gis nee na ca yàlla la bawoo te anniju min allahi waaye lépp lu aju ci gaawantoog jëkkanteeg yu ni mel yonent bi ne wala ajalatu min asheytaan nee na yàkkamteeg jëkkanteeg gaawantu ca cheytaan rekk lay bawoo te cheytaan nag lu bawoo ca moom boo ko toppee ba mu jeex lu dul musiba du la ko indil di ñaan yàlla subhaanahu wa taala boole ñu di musal ba faw ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam su ko defee rekk ñu gën a yaatal xol yi su ko defee it ñi yàlla dogale ci ñoom ñuy toppatoo yoon yi bu ñu bàyyi mukk fu pax am ci tali te gaawuñu ko defar ñoom it seet nu ñu yàkkalee tali fu yàqu nañ ko gaaw defar doodaan yi nañ leen yaraat am na doodaan yu yaree di ko yoo xam ne dafa laaj ñu yar leen loolu tamit ci ñàkk respecte jaamu yàlla yi la bokk am na doodaan yaa xam ne boo ci yéegee ba jàll bu yàlla musalul sa oto daxa fa yàqu moo ana ñi ame xam-xamu di defar doodaan yi ana ñoom moo ana kilifa yi nga xam ne bu ñu gisee doodaan bu ni mel ñu dajj ko jaarale ko ci yoon ana ñooñu waaye bàyyi rekk ku neex ku mu neex defe ko na mu la neexe ku mu neex defe ko na mu la jubóog na mu la neexe yooyu dafa bokk ci àq yi nga xam ni dañ koo yan réew mi te war nañu koo teggil réew mi nag lépp lu ñu jaare la ko ci yoon mel na mu war a mel fa tabaraka la asnul yi ñuy fay ci diggante assurance ak visite technique ak yooyu la yëpp bu fekkente ni jaar nañu fa ba matal ko nañ ko war a matale yowit fa ngay jaar war na mel na mu war a mel dëgg yàlla benn àq bañ caa am assurance it yu mel nii bu amee nit dana fay lu yàgg sax assurance di fay di fay di fay te du taseeg yu mel nii wax dëgg yàlla kon nag fu mu ameeti rek ci na mu gën a gaawee na assurance taxaw moom it taxawaayu bokk daganal li muy liggéey bokk taxaw ci àqu nit ñi gaaw ci jiyang ca war a jël yépp nga jël ko booleeg sax di ko wéttali di ko dimbali di ko gën di xelal yooyu yëpp dafa bokk ci àq yi nga xam ni réew mi yanu na ko su ko defee ñu delloo waat rek nangu kilifteef am yar am teggin teey ak dal fexe nu ñu mucce ci doon nit di doomu aadama ba noppi amee jikkoy mala wala yaasu billah yanoon ci yàlla musal jikkoy mala moom ku ku ko am jëfi mala rekk wala yaasu billah yanoon ci yàlla musal ba faw ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam su ko defee lañu fi waxoon ni Mawlaay Ahmed moo ko waxoon yàlla na ko yàlla fayal xeet wi sajjidi wa mawlaaya di sayid cheikh ahmed tidiane si al maktum radiallahu taala anhu newoon na ñett daal buy am ñett yii benn bu ci am na fexe bala nga koo sañ a tudde ndogalu yàlla na fekk lu ne def nga ko lu ne daj nga ko ba yegg ci ay la yéwén soog koo sañ tudde ndogalu yàlla bu jëkk bi mooy feebar sëriñ Cheikh nee na feebar buy am nee na na fekk lu nga ko pour wér na fekk lu ne def nga ko pour wér ba ñi la xam nekk ak yow seedeel la ne dëgg dëgg dëgg lu ne def nga ko lu ne daj nga ko fexe nga pour wér ba egg ca ay la yéwén ja soog koo sañatu da nag dogalu yàlla waaye moytu woo moytandiku sa yoon ci di doktoor yi di wax doo fabu teel jóg boo yëgee dara yu mel noonu la yépp barakallahu ci xeetu càggante la bokk moo tax mu ni feebar balankoo sañu tudde ndogalu yàlla na fekk lu ñu def nga ko pour wér ci wàllu jëf ak jëflanteeg dégg ak yooyu la yépp yar teggin ga nga xam ni wér-gi-yaram dana ko laaj ci lekk ni ngay lekke la yonent bi alayhi salaatu waxoon ca bañ ko jox addiyaam ya te boole ca docteur ne ko mu ñu docteur bi pour lan mu ne ñu ne ko boo feebaree moo lay faj àll sa njaboot ku ci feebar moo koy faj seen wàllu wir gi yaram mu ne kon moom mën naa dellu mën na dellu docteur ba lay wax de mën na dellu ah, lu tax yaa rasulallah mu ne yàlla daf ñu bind man ma nekk di koo xam ne ak sama njaboot feebar yomb nu feebar yombunu daal di lim yi mu ci lim yépp nga xam ni wér-gu-yaram da koy bañ lekk te xiifoo te boo xiifee bay lekkit bala nga suur nga bàyyi te booy xesee bay lekkit la ngay lekk bu dee lu ñuy sàqam mi nee na mi ko ci anam goo xam ni sa gémmiñ du ubbeeku te la ngay sàqam mi dana mokk ci sa biir nga soog koo jàllale mu dem waaye di sàqam mi sa gémmiñ di ubbeeku ngelaw mën naa dugg def ci yow feebar kon naka te mi dafay yaru yonent bi di ko jàngale noonu alayhi salaatu wassalaam boo sàqamee bu dee lu mel ni yàpp mu taa mokk bul jàllale yàbbil booy lekkit bul lekk lu tàng jir xaaral ba mu tedd bañ a sedd bañ a tàng nga xam ni dinga ko mën a lekk ak sago yooyu la yëpp yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale ko te boo lekkee ba noppi bu dee bëccëg la di waxtu añ boo añee ba yeggal nee na seetal fu xaw dal tuuti nga tëdd fa gëmm sëy ba tuuti siesta ngoog baax na ci bu dee guddi gi comme jant bi dem na te bu dee bëccëg bi jant baa ngi fi biir biir nga lekk def ci li nga ciy lekk biir dafa tàng jant bi tàng nga bëgg jóg song tàngaay bi génn baaxul ci wér-gi-yaram waaye bu dee guddi gi nga xam ni jant bi newatu fi génnal tuuti doxantu pour am lu sa yaram laaj ci beneen ay jéego yooyu dafa tàngaay dimbale ko biir bi bala nga lekkoon wàcc nga soog tëdd sallallahu alayhi wa te booy lekk yonent bi jàngale ci xaajal sa biir ñetti pàcc bii lekk gi bii boo dee naan nga naane ko bu ñetteel ba nga noyyee ko anam yi yépp ku ko ni toppee noonu mu ko jàngalee alayhi salaatu wasalaam ba tax koo delloo docteur ba boo feebaree nag nga xam ni jaar nga fii fépp nag sañ koo tudde ndogalu yàlla su booba nee na ñàkkit buy am ñàkk pauvreté na fekk lu ne def nga ko pour am ba yegg ca ay la yéwén ah bajo jàmbaar la waaye def na lu ne dóor na boppam fu ne sog koo saña a tudde ndogalu yàlla waaye ne yàcc di yërëmtalu di tuumaal yàlla ba amoo dara wala yaasu billah yal nañ ci yàlla musal ba faw naan yàlla ko dogal déedéet demewul noonu na fekk lu ñu def nga ko pour am fu ne duur nga fa sa bopp ba yegg ci ay la yéwén soog koo sañe tudde dogalu yàlla nee na dee buy am na fekk lu ne def nga ko pour dund lu ne def nga ko pour dund accident bi metti na bee xew ci Kaffrine am fa metti na waaye ya waroon daje bu daje woon wax dëgg yàlla amaana bu mu dul amee waaye boo déggee nuñ koy waxe di nga ca yëg càggante di ca yëg wax dëgg yàlla ñàkk dal ak ñàkk teey di ca yëgit ñàkk jikko ca wàllu dawalin ya waliyaasu billah te yooyu yëpp buñ na ñàkk mën na ñàkk ndax la sayid cheikh ahmed tidiane si al maktum anhu waxoon ni yàlla subhanahu wa mën na dogal ñépp yiw mën na ko kàttanam weesu na ko waaye mu ne bu dee ci àdduna àdduna du ko fi nangu daf ko fi jéem ndax ku ko jéem ndax ku ko yërëm yiw ku ko yërëmul yiw a di fa tabaarakallah asnul xaaliqin yooyu nag dafay mat di xalaat dafay mat di xam dafay jarit ñu dellusi si ñun doomi Sénégal ceer nañu ñu mas di xame te mooy yar ak teggin nangu kilifteef ak dal am jom te bari njomb yii moom lañ ñu woon moom lañ fi fekkoon waaye tey boo seetloo yu baree baree baree bari ci valeur yi di jukko yu rafet yay tax yàlla bég ci jaamam ba gërëm yu ci bare bare bare ngiy dem waliyaasu billah te bu ñu jeexee wala ci ëpp bu demee musiba rekk moo cay am dara weesagul nag dañu leen dellu siwaat rekk ànd ak teey ànd akuk dal lépp loo xam ne teggin soxla na ko di ñu ko laaj ñu jox ko ko respectante ci sunu biir fonkante moytu bañante moytu fexeelente yooyu yëpp ñu moytu ko yàlla subhanahu wa mi nga xam ne moom rekk moo yayoo mat waaye ku dul moom am na fooy mottali ko ci barab ñun nag ñooy amee jikko yu tedd yoo xam ne moo nuy may ñuy mottalante ci sunuy biir mottalante googu ñuy mottalante te yéenante ko yàlla matalal nu ci matam subhaanahu wa ba lépp yéwén mag ñi nag dañ daan wax ni àdduna du cere de waaye des na ko laalo nag àdduna du cere waaye dañu koy laalo waxin la pour wane ni àdduna dafa am nuñ ko war a organiser ba mu baax su ko defee rekk mbokk yi di mbokk yi jullit ñuy dellu rekk di mastawu tey ñaanal ña nga xam ni ñoo dem choc bi nag metti na metti na waaye ñun sunu dooley xel ak xalaat metti lay gis waaye yàlla subhaanahu wa mi dogal te du juum du jaawale te lu mu dogal muy noona moom yërmande subhaanahu wa moo tax muy def di dogal di dogale ca na mu ko neexe te kenn du ko ne lu tax nag kenn du ko laaj moom mooy taxawali ñëpp ëllëg laaj leen waaye moom kenn du ko laaj moom dogalam nangu rekk bu neexee nangu bu tiisee it diis nangu rekk bañ ko caa weddi ndax it am na loo xam ne moom la ak jaamam gis nga choc bi li muy metti metti metti metti ak li muy doy waar yépp ña fa jaare wuy ji seen boroom am na ñoo xam ni gis nga ba choc bay am fekk na bu yàgg seen ruux sëpp ca balcon leer yi yërmande yàlla ya di seetaan seen jëmm yu gaañu yooyu li allahu akbar di seetaan seen jëmm yooyu nga xam ni ñu ngi leen di xettali di leen gaaw di rawaleek defar ak waaje denc fekk ni leen bu yàgg ca leeri yërmande yàlla ya ca balcon leeri yërmande yàlla ya ñu sëpp di seetaan nañuy def seen jëmm yooyu le gis nga bokk na ci wala bokk mel na ni bokk na ci li tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni seen way fàddu yi dee leen leen di jàngal suratu yaasiin dee leen leen di jàngal suratu yaasiin yonent bi dem na sax ba ni suratu yaasiin ki nekk ci xarxarle xarle tëdd ci lalu ndeyam toll ci diggante ruuxam wara a teqali yaramam di génn yaramam di dem barzaq yaram ba ñu war koo waajal delloo ko ca mbokkam suuf yonent bi nee foofa neena ku fa jàngal sa mbokk moomu suuratu yaasiin walla moom mu desey sagoy toog jàngal ko boppam foofu nee ci daraja ak ci barke suuratu yaasiin yàlla day yebal beneen malaayika ni ko dawal ca malakul mawti nee ko rocc googu muy rocc sama ruuxu jaam boobu ci ndigalam ci sama ndigal kon bu ko jaam bi yëg na sedd lool na sedd ba du ba jaam ba du yëg nañuy roccee ruuga mooy ñooñu nga xam ni ñooy seetaan seen dëcc ngay sentir lu ni mel di ko yëg ca yàlla yi taxaw mi يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ñu di ci déggee lu ni mel foofu looloo waral Mawlaay Ahmed ni am na ñoo xam ni ñoom ñu ngay seetaan seen dëcc nee na buñ leen dee sang bañ leen dee sang bañ leen dee denc ci seeni bàmmeel ak yépp ñu ngi sëpp ca balcon yi yàlla ya di seetaan seen dëcc di yërëm ñi leen di jooy naan ak a neexoon ñu am kàttanu mën ñoo gis ba gis ni ñu yàlla subhaanahu wa taala terale fa tabaarakallah waxsanul xaaliqin loolu moo tax ma ni choc bi mën na metti lool de ci gis-gis nii sunu doolee xel ak xalaat gis mettit ak tartar te fekk ñoom ñu nga bu yàgg ca balcon leeri yërmaande yàlla ya di gis nañuy jële seen jëmm ya di leen yóbbu ca morgue yaak yooyu la di leen defarak yooyu ñuy jooy ñoom ñu yërëm ñi leen di jooy ndax booba fekk ne leen ñu nekk ca balcon leeru yàlla ya kon yàlla yi layta qawmi yaalamuuna bi ma xafara li rabbi wa jaalani min al mukramin yàlla na ci yàlla boole ñooña ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam teg ci it la yonent bi waxoon waxoon ni sama xeet wii de nañu dalal seen xel waxinu loolu la ndax mbugal mu leen di xaar àllaaxira nekku fa ummati haadi laythun azabun fil axira nañu sant yàlla nag bi ñu yàlla boolee ci xeetu yonent bi lu nar kon doon di mbugal mu ñuy fekki ëllëg moo xam ci bàmmeel la walla àllaaxira mu ne yàlla defal ne leen ko ci yàlla defal ne leen ko ci lu mel ni tremblement de yeeg lu mel ni accident yeeg yu mel ni lakk yi faral di am ak yooyu yépp ñuy jànkoonteel ci ay xeetu mettit ak yu ni mel nee na mooy la nga xam ni mooy dox seen diggante ak ñàkk jariñoo yërmaande ca sunu borom subhanahu wa taala yéene jaamam yooyu nee na mooy wecc yooya kon dogal la boo xam ne yàlla dogal na ko ca na mu ko soobee na mu ko neexe dogal bu am nag la sunu maam ju baax ca wayoon rekk maam seex Moussa Ka dogal bu am dafay lëkkoo kii xew-xew ngir kuñ gisul war naa lëkkoo kii sew-sew dogal bu am dafay lëkkoo kii xew-xew ngir kuñ gisul war naa lëkkoo kii sew-sew te yàlla doo ko gis ba xam la muy def loo xejj xejj buur ba làq la yëf subhaanahu wa taala kon loolu mooy li war ci ñun jaamam ñu di ko nangul ay dogalam nangul nañ ko ko di ko digal ay ndigalam di ko ko toppal waaye lépp fa tabaaraka sunu xaalixiina ci waxtaanu fàttaleen teg layante bi rek delloo séente nañu delluwaat ci jukki ji nañu delluwaat ci yar ak teggin ak dal foofu di fii la ki may seede yooyu ci moom agsi am na yar am na teggin am na dal am na teey muy sunu kilifa gii ma tàmbale woon léegi tudd turam ni incha allahu taala yàlla mën nañoo may ñu am jotaayam imaam Thierno Hamid Yero Ousmane Bane gannaaw bañ la nuyoo ziyaar la jaal la fa tabarakallahu tiis bi nga xam ni soob na yàlla mu wàcc ko ci réew mi ñépp bokk ko tey tey ñépp ko bokkandoo ñu bàyyi la gannaaw ba ñu jiitalee sa njaal ba ca góor gu tedd ga bàyyi Ceerno Muhammad Bachir ñu jox la kàddu gi aoudu billahi samiil alim min alcheytaan alrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi xalaqa almawta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu amala walsalaatu walsalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin wa alihi wa saxbihi ajmain cheikh alimaam alhaj Moussa Gueye gannaaw bu nu sante yàlla subhaanahu wa taala ki nga xam ne moo bind dund ak dee di julli ci yonte yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa ngeen ji mbindeef maa ngi lay nuyu yow ak mboolem ñiy déglu seeni émission bi tudd dëkkandoo jàmm si gën di leen ziyaara di leen massaw te di leen jaal di leen delloo njaal jaar la ci nuyoo bi ak ziyaara bi suñu sëriñ suñu wayjur suñu xalifa Mawlana Cheikh Mouhamadul Bachir Muntaga Taha Cheikh ma radiallahu taala di jotal njaalam réew mi yëpp ñi nga xam ne seeni mbokk ñoo ci des mu ngi leen di jàlle kenn ku ne fi nga baw di ma saw ñi nga xam ne am nañ ci gaañ-gaañ di leen ñaanal yàlla yàlla ne leen yàlla delloo seeni sago allahumma amiin di jaale njiitu réew mi mooy président de la république ndax moo njaboote ñëpp di jaale gouvernement am yëpp di jaale nag xawsatan alxulafaau addiniyatu fii Sénégal mboolem ka xalifa diina yi Thierno Bachir mu ngi lay jaale di la massaw tiis bi Cheikh al Imam Moussa su mbir xewee dañoo war a delloo ci yàlla dëgg ndax ñu ngi wax inna lillahi mhm. wa inna ilayhi rajiun mhm. dañoo war a jàngat loolu bu baax a baax mhm. ndax soo bàyyi ko ci yàlla danga war a teg sa tànk di yàlla santaane mais sooy delloo ci yàlla tamit danga war a fagaru waajal sa bopp sooy delloo ci yàlla ndax ngay delloo ci yàlla loolu yëpp nag li koy yombalal mooy al imaanu billahi imaanu billahi juróom benn ponk la bokk na ci ponk yi mooy al imaanu bil qadari mooy nangu ndogal ndogal yàlla su jibee metti na su fekkente ne charri yi lay doon wante neex na su fekkente ne xayri yi lay doon mm-hmm. wante alxayru wa charr kullum mm-hmm. ci yàlla la bàyyi ko mm-hmm. jëm ci jaamam yi doonte day am sabab soo demee ba gëm am delloo si yàlla léegi nag toog def njàngat lii lan moo la ko waral su fekkente ne def nañu njàngat boo xam ne lii lii moo koy waral mhm. léegi ñu xalaat naka lañ koy saafara mhm. bil xikmati mhm. wal mawcidati al xasana defaraat ko ci xel ak waxtaan bu ànd ak ak teraanga udu ila sabili rabbika bil xikmati wal mawcidati al xasana wa jaadilhum billati hiya axsan mais xuloo mm-hmm. du régler dara xeex du régler dara mm-hmm. coow mm-hmm. du régler dara lii régler dara mooy teey ànd ak sagoom delloo ci xelam toog waxtaan bu juboo ci kaddu lépp lu ñu juboo ci kaw nag ñu wéyal ko su fekkente ne réew la réew mi am na ay charte charte yooyu dafa mel na dañu ko tibbee ci diine ndax diine boo gis war na am charte mais yeneen diine yi xawma seen charte mais diine lislaam am na al shariatul muhammadiyatu sharia al islaam am na kon soo doonee jullit da nga war a tënku ci sharia mais soo nekkee ci réew tamit da nga war a ci constitution dëgg bi bàyyiwul dara ci doxalin réew. ci nekkin réew ak ni nga xam ne moom la waa réew mi naka la ñuy dëkkee ci réew mi pour jàmm gën a law jàmm gën a yaatu. comme ni émission bii rek. mooy dëkkandoo ma ci gën. dëkkandoo jàmm ci gën da koy gis fu ne. diggante chauffeur bi. ak otom. diggante client yi ak chauffeur bi. yi ak client bi. wante diggante chauffeur bi si boppam. Mhm. ak permis am. diggante chauffeur bi ak tali bi. ñoom ñoo dëkk. kon li si gën. Hmm. mooy jàmm. su safaan ñëwee rek ñëpp yëg. ñaata yoon la oto yi di dem di dëkk dem di dëkk kenn yëgu. wante bi safaan amee. réew mi yëpp yëg na ko bitim réew mi yëpp yëg na ko mm-hmm. ba président yi roi yi mm-hmm. di jaale président la république di jaale réew mi loolu nag état bi mm-hmm. war na def taxaw seetlu ci njabootam njaboot gi am na ñi nga xam ne dañoo tuddee seeni boppu chauffeur mais balaa nga doon chauffeur danga war a def nekk apprenti walla dafa da nga war a dem ci école auto mhm. école mhm. nga jàng mhm. soo jàngee nga passé permis soo passé permis ba ñu xam ne ne yow mën nga dawal ñu jox la autorisation na nga dawal léegi nag charte yooyu yi nga xam ne moom la ñu wax kii wut permis ak su amee permis naka lay toogee ci volant di dawal nga nekk particulier wala nga nekk transporteur en commun léegi nag état bi moo war a taxaw li ñu wax fii ngeen di jaar nii ngeen ko defee mhm. kenn ku ne taxaw ci mhm. ku bàyyi loolu mhm. su booba sharia lu mu wax ñu jaarale ko foofa ñu bañ a am yërmande ndax yërmande yàlla ñu ko jiitu ndax moom tudd na ar rahman yonte yàlla muhammad sallallahu ñoo ñu ko jiitu mooy nabiyu rahmati wante su dëgg jotee dañu koy wax soo jëf doo jotee dañ koy jëf première chose soo seetlu am na yenn oto yi waruñu dawal waruñu daw ci kaw tali bi dëgg la oto yooyu waruñu daw kon nag oto yooyu ñi xam ne waruñu daw nu bañ a def benn yërmande. Uh-huh. nañu leen gaare. dëgg yàlla. ba ñu mën a daw. Uh-huh. ñu joxal leen autorisation nañu daw. Uh-huh. am na yenn chauffeur yi waruñu dawal. dëgg la. su fekkente ne ñu ngi dawal. ba ñu xam ne ñii waruñu dawal. war nañu leen tere dawal. ba ñu am matukaayu pour dawal. kon suñu wax suñu xoolee daal. Mhm. dañuy wax ne responsabilité partagée. comme ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi chauffeur bi responsable ci otoom responsable ci client yi muy yëpp. Mhm. ba mu àggalee ba mu yóbbu leen ci jamm ak salaam. Mhm. kon nag lu ci xew rek mooma. wante police ak gendarmerie ñi nga xam ne ñu ngi ci sa kaw tali bi tamit ah, ñoom tamit responsable lañu ñoom xam nanu oto bu baax mhm. xam nañu oto bu baaxut dem nañu ba yem léeg-léeg dangay gis am nañu ay appareil oto bii su dawee lu ëpp li nga xam ne moom la waroon daw mhm. dañu koo xam mhm. te léeg léeg dañu leen di dànkaafu dañoo dànkaafu chauffeur yi loolu mhm. yëpp war nañu ko gën a dëgëral pour macha allah yoon wi ñu bari ñu mucc ci mhm. waaye nag ndogal yàlla su ñëwee moom ah, kenn mënu ci dara ida mm. eh. jaa al qadaru mhm. amiya al basaru mm, su fekkente ne ndogal ñëw na lépp loo doon xalaat dafa dafay dafay dafay réer dafay ah, kon ñu mm, ngi jàll ñëpp di ñaan yàlla lii yàlla na fi géej te ñi dem yàlla na na yàlla xari aljana ñi feebar yal na yàlla may wér ñi si des yëpp yàlla na yàlla musal yu mel ni yomb na yàlla yàlla na ko yàlla defal imaam mu sama joxaat ka kaddu bi waaw Thierno jërëjëf ci kaddu yu gàtt na waaye ëmb na lépp ëmb na lépp te am njàng ngi ci de surtout di nga wax te muy dellu buñ ko defee noonu ci jàmmi nit ñi jàmmi mboolo mi ndax jàmmi péncit lu saf sunu borom la subhanahu wa taala li nga ni ci oto yi am na ci oto yoo xam ni waratuñoo daw waaye ci chauffeur am na ci ñoo xam ne waratuñoo dawal ci lu wér te loolu nag taxawaay bu mat sëkk moo koy mën a dindi mm-hmm. yonent bi nag indi nañu solution de ca man ra a munkaran ja hmm? képp koo xam ni gis nga loo xam ni du yiw wala musiba lay jural nit ci ëllëg di loo xam ni baaxul bañees na ko ci lislaam te bëgg mu dal sama xeet ku ko ci gis yonent bi ñu teem mu am kàttanu dindi kook loxoom na ko dindi ak loxoom kooku ñi amee yaru buur ñoo ko moom hmm. mooy li nga wax léegi ñoo ko moom ku amul daraja yi dindee ko ko loxoom ak kàttan ga na ko dindi ci wax ba mu deñ kooku ñu yàlla dogal ñu am kàddu seen kàddu jotale ba ñu ko dégg mën caa defaru ñoo ko moom waaye nag ku amul bee amoo bii nag la yonent mel ni bañ ko ci soxol hmm? bañ ko ci soxol mais ku ko bañ ci soxol cerno hmm. tuuma topp na hmm. ña ko mën a dindi ak seen loxo topp na it ña mën a wax ba ñu dem waxuñu ca kon na ku nekk def waru garam rek hmm? waaw waaw loolu mooy li ñu wax léegi uh-huh. mooy responsabilité partagée très bien wallahi wallahi waaw bi am na ci wàll uh-huh. ñi nekk ci kaw tali bi am na ci wàll ci wàll waaw ñeneen ñi nga xam ne yàlla may na leen kàddu uh-huh. ñoom tamit am nañ ci wàll wante ñi am walla ci yu mel nii hmm. ñaari nit ñoo ci gën a am wàll mooy ñiy taxaw mhm. di sàmm tali bi dëgg ndax état bi jox nañu leen jumtukaay nañu dem taxaw ci tali bi pour aar tali bi ak lii dox ci kaw tali bi mhm. mooy gendarmerie ak police ak douane si boppam mhm. ñoom kenn ku ne yaa ngi def sa liggéey wante douane moom ci dugal lu bon wala saytu li nga xam ne moom lañu ñu tere foofu la ñu féete mais ñoom tamit am na ñu seen bés. Mhm. ñaanuñu yàlla seen bés agsi. waaye am nañu seen bés seen bés chaque jour mu ñëw. Mhm. mais ñi gën a am ay waa responsabilité ci lii. Mhm. ci wàllu nguur mooy police ak gendarmerie. ndax état bi président mënul jóge palam ñëw taxaw ci tali bi di régler tali. ministre mënul jóge ci bureau ñëw ci tali bi di régler tali. déedéet directeur généraux yi. mënuñoo jógee ci seeni bureau ñëw di régler tali seeni ndaw ñoo nekk ci kaw tali loolu moo tax seeni ndaw mhm. ku leen ñàkk teggin ci tali bi mhm. dafa mel na kilifa yu mag yi nga ñàkkee mhm. bi nga xam ne moom lañu ñu war a dawal ci nit ki soo ñàkkee kilifa yi teggin soo ñàkkee kilifa ndawal buur tamit teggin mhm. sharia boobu moo war a jaar ci sa kaw mhm. ndax ar rasulu bi qadril mursili ki ñu yónni ci kaddu ki mu yónni moo moom la la am mhm. kon kenn warul xeeb police kenn warul xeeb gendarme lu ñu la wax na nga ci war a bàyyi xel ndax suñu jàmm moo tax ñu taxaw ci tali bi dëgg la aar suñu yaram ak aar suñu alal kon gendarme yi ak policier yi ñoom seen responsabilité lu mag la ci kaw tali bi gis oto bi nga xam ne ne warul dem nga bàyyi ko mu dem hmm. nga gisaat ko mu dem nga bàyyi ko mu dem nga gisaat ko mu dem nga bàyyi ko mu dem te jox nañu leen digal oto yu mel nii su jaaree fii walla ñëwee fii tere ko mu dem nga bàyyi ko lu ci xew soo moytulee soo su fekkente ne waxuñu tey bi ëllëg yawmal qiyaamati sa responsabilité sa diggante sa borom dañu koy wax. ci surcharge yan ko bagage yu waaw policier bi naka noonu. Mhm. suñu gisee surcharge yeeg ak lu demee noonu yëpp. Mhm. seen responsabilité la. dëgg la ñaareel bi responsabilité chauffeur yi la. dëgg la bi. Mhm. moom tamit bëgg ba ëpp. tax na boo dañooy dugal ci seeni oto lu oto attanul surchargé ko ci nit surchargé ko ci bagage ñàkk saytu sa oto ñàkk yóbbu ko ci entretien boo mbir xew boobu sa responsabilité la mhm. benn responsabilité borom oto yi am na yenn borom oto yi ñoom tamit mhm. chauffeur dana ñëw ci yow mu ne la sama pine jeex na nga ne ko demal rek am na yenn oto yeneen oto yi même oto pneu secours sax amuñu ko. ndax am na yenn pneu secours yi du pneu secours. wax nga dëgg de. waaw chauffeur bi ñëw si yow oto bii paan na fi nga ne demal rek. loolu yëpp ngir bëgg a xaalis lu ci xew yow mi borom oto sa responsabilité la. ndax chauffeur bi sa liggéeykaay la rek. Mhm. daf lay liggéeyal rek. comme mu ngi lay liggéeyal su ñëwee wax la lii wax na li danga nga ci war a bàyyi xel wala de tout le temps balaa sa oto di dem danga war a ñëw nemmeeku oto bi xool lan moo ci ña nga fexe nga nga nga nga nga defar ko. Mm-hmm. su fekkente ne munoo dem nga seet sa doom wala ki nga wóolu mu di say say oto. Mm-hmm. mais am na ñi nga xam ne seen yoon nekkul ci oto bi baaxee baaxul taxi bi oto bu mag bi oto bu ndaw bi yépp mm-hmm. ne xaalis bi ñëw rek. su xaalis bi ñëwul xul ak chauffeur bi dàq ko te ñàkk ko teggin am na ñi nga xam ne sax dañoo def seeni chauffeur ay jëf yi nga xam ne yow sa bopp sax dangay da ngay da ngay da ngay tiit ñooñu tamit am nañ seen responsabilité benn responsabilité mooy passager yi mhm. su ma gisee oto fees na wax dëgg yàlla ba mënatuma dugg ma taxaw ma xaar beneen wax dëgg yàlla defee noonu ñoom su fekkente ne yàlla dogal na juuyoo noonu ak ak état bi ñu def grève hmm. yéen tamit na ngeen def seen grève bopp <laughs> grève ñàkk surcharge <laughs> ca dëgg dëgg su borom ñëwee bëgg a surcharge nga ne déedéet bàyyil demal boobu yeneen ba beneen ñëw dëgg soo defee loolu suñu defee noolu mu am mu baax kon suñu xamee mbir mi clients yi am nañu seen part responsabilité hmm. chauffeur yi am nañu seen part responsabilité borom oto yi am nañu seen part responsabilité ndawal buur bi nga xam ne moo nekk ci kaw tali bi moom tamit am na per seen part responsabilité oh. kon na kenn ku ne soo taxawee sa taxawaay ba mu mot sëg mun mm-hmm. naa am jaay jaayee ñëw loolu mooy ndogal mm-hmm. wante léegi-léeg mu oyof uh-huh. ah, waaw dama wax ne toujours soo gisee accident mu bon rek mm-hmm. kii am na kii violé code de la route wallaay ndax képp ki nga xam ne ne sàmmonte nga ak code de la route doo gaaw a def accident. Ah, soo defee accident tamit accident bi du du du mhm. léegi-léeg accident yi ci vitesse bu ëpp. Ah, moo tax mu di ñëw. Mhm. vitesse bu ëpp code de la tere na ko. dem na boo dañuy def fa ay panneau panneau panneau ah, fii waroo def waroo weesu cinquante fii waroo def weesu soixante fii waroo weesu nangam fii waroo weesu nangam fii tournal la fii waroo double hmm. Ah, sooy bàyyee xel ci loolu. dëgg la te da nga war am distance sa ak sa beneen oto. dëgg la soo defee loolu lu bari incha allah yàlla mën a def sutura. mais li am indi problème bi tey tey ji mooy xale yu ndaw la ñu jox oto yu mag yi. di dawal léeg-léeg ñu jëfandikoo li nga xam ne ne macha allah day taggal ko nit yi ak sogom walla ñu dem bëgg a dawal sonn. nelaw mooy buur. mooy buuru jaam buuru nit ki ndax dañoo ne am na ñetti mhm. yaa ko moom mhm. ñetti ñoo moom mhm. ñetti ñoo moom seeni bopp muy <laughs> <laughs> ñetti ñi nga moom ah. yaa moom sa lamiñ yaa moom sa loxo yaa moom sa tànk dëgg sa lamiñ loo wax yaa ko tey dëgg la sa loxo loo laal yaa tey sa tànk foo dem yaa fa tey dëgg la kon nag yaa leen moom mm-hmm. ñi la moom mm. mooy nelaw mm-hmm. ñoo la moom waaw xiif ñoo la moom <laughs> uh, ñett fàtt ñettal biir <laughs> waaw dinaa ci ñëwaat uh-huh. ñi moom seen bopp nag waaw mooy bët moom moom sa moom moom boppam <laughs> bakkan moom moom boppam. dëgg la dëgg nopp moom moom boppam. waaw waaw ndax da ngay xool li la neex ak li la naqari. doo ci mën dara. da ngay xeeñtu la neex ak lu du ci mën dara da ngay déglu loolu neex ak loolu naqari mënoo ci dara waaw wallaahi waaw ñoom moom seen bopp waaw ah, ñetteel bi uh-huh. mooy mooy mooy dem dem defaru mooy dem toilette waaw moom tamit moo la moom waaw nelaw ñëwee moo la moom ala uh-huh. kulli xaalin da nelaw par uh-huh. xiif su ñëwee moo la moom. waaw waaw lekk par force. dem yow defarwaat. soo ñëwee dangay ngay da ngay dem defarwaat par force. kon ñett yi ñoo la moom ñetti yi yaa leen moom ñett yi ñoo moom seen bopp. allahu moom nag sooy ñëw ci yow dafay ñëw ak force. dëgg la ala kulli xaalin dafay def li nga bëgg. li mu bëgg def ci yow. kon chauffeur bi tamit su demee ba mu sonn. na noppalu. dëgg la léegi léegi da ngay gis ay clients yàkkamti nañu yàkkamti koo xam ne sa chauffeur kee man dafalal xanaa munoo xanaa ñemewoo xanaa nangam nangam. boo ñu jaxase boppu chauffeur <laughs> yi. bu njëkk bi sax maa ngi doon gis ñu bind ci car rapide yi wala ak lu demee noonu. bul wax ak chauffeur. ne pas parler au chauffeur daawoon nañu bind loolu ci défense de parler au chauffeur. au chauffeur ak défense de fumer. de fumer waaw waaw léegi nag xaw ma ndax léegi loolu am na wala loolu amatul. <laughs> kon loolu yëpp war sew sew la war nañu ko xoolaat. waaw waaw encore dégg naa ne nee nañu ku def safaan. Mhm. dañu defal point dañu pointé ci sa permis. waaw soo defaa defaanee ñaar ñu pointé ko. Mhm. soo defaanee ñett ñu pointé ko. Mhm. noon noonu ba pointé yëpp jeex après ñu nangu sa permis loolu tamit dañu ko war a wéyal. tigi waaw waaw waaw war a wéyal. kon responsabilité kenn ku ne soo taxawee ci sa responsabilité rek incha allahu mun naa am léeg-léeg ndogal jib want su jibee tamit du métti. waaw wallaahi. waaw Moussa waaw wallaahi Thierno waaw wallaahi Thierno te Thierno bi ci gën a raglu xam naa ni waxtu yi jot na. bi ci gën a raglu Thierno ci yi nga wax yëpp ci ku nekk ak sa responsabilité bi ci gën a raglu baloon caa àgg nañu xam ne kon ñun ñëpp ñu ngi toll ci muhaasabatu nafs incha allah ah, so soobee yàlla euh, mardi bii di ñëw waaw dinañu ñëw waxtaan bu ñu xaasabatu nafs ak al muraqaba alhamdulilah waaw muraqaba ak muhaasabatu nafs incha allah suñu ñëwee ñu ñu ñu ñu kii ko ndax loolu yëpp waaw chariatul islamati indi na ko wante ak tasawuf indi na ko comme ni nga jëkkee ci fa aleyka yabna muhammadin naadaani lépp mu ngi ci biir allahu akbar lépp mu ngi ci biir su booba fa aleyka yabna muhammadin boobu uh-huh. dañu ko dañu koy jëmalee ci wàllu yàlla uh-huh. mais dañu koy jëmalee ci wàllu nit uh-huh. mais dañu koy jëmalee ci wàllu comportement comportement ndax ñett yooyu rek mu am wallaahi wallaahi nit ki ak yàlla nit ki ak bokkam boppam ak nit ki ak jamono. Mm-hmm. waaw kon nag. Euh, ruuxiyan xuluqiyan ak sulukiyan. ak sulukiyan ñett yooyu yëpp incha allah. incha allah kon nag dañuy waxtaan ci ñett yooyu yëpp. incha allah incha allah su soobee yàlla dëgg dëgg kon ñoo euh, jéggalu euh, heure bi ñu dépassé tuuti. Mm-hmm. te tàggoo te tàggoo bu dul tàggoo incha allahu taala ba talaata ak jàmm yal nañu ci yegg ak jàmm bi jaay sidna muhammadin alayhi salaatu wassalaam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ndax ku mu doon nag. nu mu doon ak fu mu doon ak